Amadou Mahtar mbaw day ku yàlla may muy sénégalais di africain di tiers-mondiste mu teel a liggéeyal Sénégal teel a liggéeyal Afrique parce que déjà 1937 bi mu jógee Louga ñëw rek Dakar jaar chambre de commerce en tant que élève mais aussitôt dafa def benn concours ci armée dem nekk fa électromécanicien apprenti pilote d' avion 1937 deux ans après 1939 deuxième guerre mondiale éclaté mu dem bokk ci donc bi dem deuxième guerre mondiale mi ngi am 21 ans. mu bokk ci xeex pour le contre de la France avec les Allemands contre les Allemands ba mu mujjoon sax nekk prisonnier bokkoon na ak Senghor benn prison mais gisante wuñu bi yëf yi weesoo ba ñuy waxtaan ci lañ xam ne daje nañ fi mais gisante wuñu mais surtout. mu fekk kuréel gu ñu wax association association des étudiants africains mu ñëw bokk ci ba jiite ko sax daje fa ak Kizerbo daje fa ak surtout Béhanzin Béhanzin moo doon roi wu Dahomey à l'époque moo nekk beneen léegi nii bokk fa ak ab Seck ak Ablaye ñu ànd ba dellusiwaat Sénégal fekk jàng nañ ba am diplôme bi ñëwee ci lañ créé PRA Sénégal ñoo ko créé PRA Sénégal boobu mujj na bokk ci gouvernement Senghor ndax PRA Sénégal ak ñoo créé UPS UPS mujj nekk. alors non seulement mu nekk ministre ñaari yoon ci gouvernement Senghor mais mu dem UNESCO nekk fa sous directeur ba 1974 ñu fal directeur général mu am plébiscite mu nekk candidat tiers monde mu remplacé français bu ñuy wax René Maheu na am na yeneen candidat mais sur 127 fois am na 126 voix plus benn abstention loolu mooy plébiscite mu def fa un mandat defaat fa beneen mandat muy 13 ans. mu jóge fa bi mu jeexalee bu ñëw bu ko neexoon ñëw Sénégal tëdd noppal noppal yaramam mais sénégalais yi ay sénégalais soxla ko ay parti politique ak société civile di créer assise nationale ñu ñëw fekk ko ne ko dañuy bëgg nga jàppale ci assise nationale yi. Amadou Mahtar Mbow citoyen du mooy lii ma wax nii lépp cursusam lépp combat la cursusam yëpp défi la défi yoo xam daf leen relever donc bu ma jeexalee ci assise xoolal jaar yëpp. c'est quelqu'un qui s'est toujours donné koo xam ne nii dafa jox boppam ngir ay cause jariñoo te musul jariñoo boppam kon loolu ci laa sukkandiku ba tuddee ko amaduma Matar Mbow citoyen du monde te mérite na loolu mérite ko ëpp euh, moom nee na boo nekkee ndaw di wut liggéey boo demee ba nekk maçon sax fexeel ba nekk ki gën ci maçon yi xam nga kon xeebul maçon waaye dafa jël maçon def ko exemple par rapport métier yi te maçon mooy tabax immeuble fii ñu toog ni maçon ko liggéey kon maçon am na solo mais dafa ne booy nekk maçon fexeel ba nekk gën ci maçon yi ki nekk ki gën ci maçon bu yàggee day nekk entrepreneur créer emploi donc loolu day wane ne jeunesse gëmal sa bopp te bañ a gëm géej gi bañ a gëm désert bi di dem ci yeneen lendemain incertain muy xaru yi ñuy def nii pour dem Europe nañ gëm suñ bopp gëm Sénégal gën gëm Afrique te ku nekk di xëy ak gont ci li la war boo ci saxee yàgg-yàgg di nga am teraanga anglais bi moom dèjà am nañu ma contact bi ko mais livre euh, langue nationale nag moom du ñàkk mu xaw a jafe ndax laaj na yeneen investissement waaye danaa ci jublu incha allah ba mu tasaaroo.